i asalaamualeykum ñu ngi dellu si am ak yéen jotaay ci waxtaan ci tolluwaay réew mi ak ci xew-xew réew mi di leen gërëmati tey ñu ngi waxtaan ak yéen ànd ceeg mbégte gu rëy ndax ñu ngi sant yàlla am nañu tan bu baax a baax a baax suñu wér-gu-yaram am na ñu péex gu rëy rëy ñu ciy gërëm ñi nga xam ne ñooy waa kër docteur ak seen taxawaay di ci gërëm yéen ñëpp ci seeni ñaan ak seeni yitte yooyu lépp yàlla boole moo ñu may tey ñu mën a togg ak yéen euh, ci peex ak tal pour waxtaan ak yéen waxtaan gi nag ñoo ngi ko waroon waxtaanee jëmale rek ci woote ci taxawaay gi nit ñi war a am ci li ñuy dëgmal muy ëllëg gannaaw ëllëg ak bu soobee yàlla le trois avril ci li ñu woote nañu manifester fépp ci Sénégal ba Macky Sall xam ni. sénégalais yi ànduñu moom manifeste gi nag ñépp ci war a ànd manifester bu ñu jàpp ni manifester yi affaire ndaw ñi kese la walla affaire Pastef kese la déedéet li Macky Sall bëgg bu ko amee kenn ku ne fi nga toog di nga toog matt sa baaraam bu cax la xeex ñun ñëpp ba ànd ba yegg si fii ba sénégalais yëpp am yaakaar ni lañ doon xaar boobu ba léegi fukki weer ak benn gën saa gudd moo ci des pour ñu mun cee commencé koo liggéey ba ñëpp gis àdduna yëpp gis ni senegal ay ndawam la keneen mën ak la ñeneen mën mën nañ ko loolu la Macky Sall bëgg a fànq tey moo tax bu kenn jàpp ni mbirum usmaan Sonko la mbirum diw la wala diw Ousmane Sonko xaarewul dara ci politique salaire sax bëgguma ko ci politique yàlla mi ñu tiim ak weeru koor gi yéene gu ñu am ci réew mi rek bëgg liggéeyal réew mi jaamu ci yàlla ba waa réew mi yëpp gis ni lañuy seenu feneen wala lañuy ñuy uti feneen ndekk yomboon nañu suñu biir réew loolu la Macky Sall ak li mu àndal benn benn yi mu àndal bëgg koo jaarale ci justice moom lañ ne tey dañ koo bëgg fànq ndax dinañ ko nangu moo tax yow taximaan bi yow baykat bi yow étudiant bi yow menuisier métallique bi yow ouvrier bi yow yow yow kii yow mii di jigéen gi ñépp laa boole woo ñu bañ a sàggan ba Macky Sall noggatu ak nappaate gi mu nekkee foog ni mun na tiital Sénégalais yi ba kenn dootul ñeme yëngu loolu bu mu mucc bu mu am mucc li ko mën a dindi nag mooy askan wi bis bu xamee dooleem xam mën-mënam xam ni xajul ci kenn xajul ci Macky Sall xajul ci police am xajul ci gendarmerie am gis ngeen tubaab yi la ñoom amuñu ko tey ab français bu toogoon liggéeyul sax am na lu muy fayeeku weer wu ne loo xam ne mun na ko permettre au moins mu fay location ak dund te tey ñoom ñi ngi génn di xeex suba ba ngoon jot ñuy xeex xeex yu metti parce que rek dafa am réforme bu ndaw bu ñu bëgg a jàllale pour ne léegi dootuñu retraité 62 ans waaye 64 ans la ñuy retraité waaye xanaa ñooñu dañoo war a gën a bëgg seen bopp bu ñu toogee dégg ay nit di essayer dugg ci xelu ndaw ñi naa leen ku fi dee yaa perte ak nangam nangam dama naan xeetu njaam googu moo taxoon tubaab gi noot suñuy maam xeetu wax jooju mooy nangu tënk sa bopp ci jaam moo taxoon tubaab bi noot suñuy maam génération bi ñu toll nag weesu na loolu dañoo xam ni réew mi rek lañu am amuñu feneen amuñu beneen nationalité bëgguñu ko sax réew mi nag doomu réew mi koy defar te bokk na ci li koy defar ci doomu réew mi projet bii ñu leen andil joxuñu leen xaalis sexaluñu leen lem menacé wuñu leen mais di leen won benn benn ngeen di gis ba tey ñu am yaakaar ni ñu nga ca cappaan ub Macky Sall ak ay juge ak ay procureur ne ñoom ñooy taxaw ne tey loolu du am ci Sénégal buñ ko nangoo rek ñun ñoo nangu ñu tënkuñu cib njaam moo tax nag ñu ne na ñëpp génn suba le 29 gannaaw suba le 30 ak le 3 avril bu ñu kenn essayé boole kenn ndax da ngay dégg ñu naan waaw ñoom respecté wuñu république bi ndax date bi kenn waru cee manifester Macky dafa respecté république Macky Sall suy tëjaatee daf ci xool luy 3 avril ak luy avril. suy dóoraat ak suy dóor nit ñi ay bal daf ciy xool ban bës sañu nekk dama ne ku mën a xeex na xeex ku mënul xeex na maadu ci li ñuy xeex waaye kenn duñu tënk ci yooyu ñenn ñi dañ naan waaw 4 avril feetu armée bi la kon weeru ko ñun 4 avril kenn tuddul 4 avril 4 avril suñu 4 avril ñun ñëpp la te armée bi kenn ëpp ëppalewuñ ci kenn gënuñoo fonk armée bi ñun dañoo xam lan mooy armée waaye la ñuy xeex bokkut rek loolu te gëm naa ni li ëpp ci armée bi ànd nañu ak ñun ci li ñuy xeex dama gëmuma ko sax dama dama cee am yaqin moo tax bu leen kenn dugal ci débat yu amul solo bu ñu deltoo gannaaw rek mooy may nañu Macky Sall fu mu jaare ba faw te kenn dootul noyyi ci biir senegal kenn dootul am aafiya looloo tax nag ma ne waxu procureur sax taxu ma woon a jóg waaye procureur dafa wax loo xam ne ay wax yu teguwul ci dëgg la may wax sénégalais yi nag procureur bi doon wax tey muy baaxum ku ma xam la ma xam ko daanaka sama mag la ndax yàlla dafa def rakkam bu mu bokkal ndey ak baay doon sama xaritu benn bakkan lenke ñu ànd jàngandoo première année ba quatrième année université bu ñu jógewaan université ñëw vacances Thiès këram cité la bi dama fa daan dem toog rakk ji da doon ñëw seet si ma ñu dem ba mu doon affaire famille day day ñëw fii sama kër daan na fi ñëw daan naa ñëw këram fii à côté procureur baaxum bi waay juram bu jigéen feebare ñu entré ko fii Ndakaaru sama jabar moo doon togg añ chaque jour ñu yóbbul ko suñu yaaja ba keroog ñu ko yàlla moomee kon kooku xamantewuma ko su ma waxee li nag waxuma ko pour yoole waaye li tax ma wax ko mooy won Sénégalais yi Macky ni mu bonee ci justice senegal ni mu munee jël nit wàcce ko ba ci suufa suufa suuf imma dafa am ay dossiers yu mu téye ci yow doog la fal fi mu la fal nommé la fi mu la nome ne li ma bëgg ngay def walla mu am lu mu la dig ci xaalis wala ci alal nga topp li muy def foofu la justice bi toll tout justice bi yëpp nag waaye ñëpp xam nañ ni magistrat yi bañ yëpp tey sonn nañ ci justice bi gis ngeen mouvement bi passé ñi doon bañ ñëpp jël nañ leen sànni leen fu sori jël seeni nit teg leen ne leen li ma bëgg ci Ousmane sonk nga may defal mooy warul nekk candidat en 2024 baaxum bii bu toogee tey di wax mel ni ku ma xamul di essayer gëmloo sénégalais ni man Ousmane Sonko terroriste la dama naan àdduna lu doy waar la waaye noonu la makisal mel ak justice ñi fi jox cër yépp ndomb tànk bu tax ñuy wax ci justice bi ku xam seen jaar-jaar ci wàllum magistrature di nga xam ni foofu du woon seen place dossiers yi ñu am yépp ci biir magistrature ñëpp xam nañ ko baaxum xamante nañ bu baax ànd nañu ñaani jabar toog nañu naan ataay def nañu lépp moo tax moom li mu wax xam na ni du dëgg moom li mu wax bu ñu daje woon léegi li may njëkk mais sama rak comprendre ma rek li mu wax ci boppam xam na ni du dëgg xam naa ni ay mbokkam yi ma séqal man buñ ko déggee tey am na ñu leen metti te àdduna dara jarul yenn yi waaye ma dellusi ci li mu wax baaxum dafa wax ni benn man ba léegi ñemewul wax waxul waxul sama wax de man ci li mu wax ni dañ ma doon essayer faagaagal wax na ci El Malick li mu bind wax na ci presse li mu bind waaye ñooñu ñëpp balaa ñu wax man maa njëkk a wax man maa ne dañ ma doon essayer faagaagal dañ doon essayer faat sama bakkan te ñi ko def waa police la xam nga man li may wax dama koo ñeme man raayantuwuma làqatuwuma li may wax dama koo ñeme ndax koo jàkkaarlook mu taxaw yor li mu yor pompe la ko nga gis ko nii ci biir bët man kooku kenn duma ko nettali Maître Ciré Clédor Ly gis na ko Guy Marius Sagna gis na ko kon naka lañu mën a ne man ma génn ne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 parce que injustice ku koy wër dëgg ci yéen lay ñëw man mii di wax ak yéen rek ñeenti plainte déposé naa ko ñetti plainte déposé naa ko ci sa table ñaari ci ay ay ay ay ay avocat ñetteel bi ci procureur bi fa ne woon balaa yéen ngeen di ñëw ana seen enquête yéen daal leen neex ngeen ngeen di def foog ni dañ leen di bàyyi noonu rek balaa may dee nag ngeen ne dafa am commando bu leen doon rëbb bu leen doon pexeel bëgg daal seen kaw ñun de yéene leen ko ndax ñun ñëpp jàmm lañ leen yéene yéenay fitna di dal suñu kaw rek waaye yéene wuñ leen ko waaye nag jàmm dañ koy mayante nu ngeen doon doon doon ay magistra ay nit dong ngeen donc lu ngeen def ci keneen mu métti ci moom buñ leen ko defee mu métti ci yéen dama ne doomu jàmbur yi ngeen di jàpp tegu leen ko fenn dul bëgg lu neex Macky Sall di leen tëj ci kaso yi di leen takkal ay bracelet électronique abi yi ngeen di def chaque jour foog ngeen ni loolu mun ngeen ci dëkk ba pare mucc ci mënul ne dossiers yi ñu leen di monteloo fu askan wi amee yaakaar ci projet politique ak projet de société ñu jël ñetti magistrat ñeenti magistrat ne leen yéen yéenay dakkal loolu foog ngeen loolu mun ngeen ci dëkk ba pare mucc ci bu mettre contre la volonté d'un peuple tout entier pour plaire à Macky Sall ba pare jàpp ni loolu mun ngeen ci mucc ñi leen di nax ne leen mun nañ leen assurer protection dañ leen di nax rek ndax xeex bii peuple bi di xeex du xeexu benn fan du xeexu benn weer te ñu ak yéen ñoo nekk fii biir senegal menacé wu ma kenn nag waaye dama ni dama leen di dànkaafu ngeen xam ni tooñ baaxul loraange baaxul dañ leen ce peuple sénégalais moo leen di fay pour ngeen atte te ngeen ragal ci yàlla xool ci peuple boobu su ngeen solee nag seen malaanu politicien dem toog di jaamuma ci Sall di ko defal li mu bëgg dina am fu muy toll bés bu réew mi yëngoo li di dina dal seen kaw yéen it te it Sénégal yi sonn nañu te fitna yi fiy juddu yëpp depuis les années quatre vingt ba léegi fitna yi fiy juddu yëpp ci wàllu politique loxo magistrat mi ngi ci gannaaw ci décision boo xam ne ki koy jël leer na ko bi mu bi koy jël ni décision bi waru koo jël. mu jël ko dem toog jàpp njàmburam foog nit ñi mun nañoo continuer muñ loolu procureur comme politicien la ni Macky Sall di politiquer mooy bi ñu commencé ba léegi ñu ngi xool nu ñuy def ba jaxase Pastef ak kilifa diine yi waaye gis nañ ni lajj nañu lajj bu doy waar ndax tey foo dem ci foyer religieux yi bu pa bu élection jotee man coalition bi ñuy bokk moo koy gañe li ci feeñ ci élection législative yi weesu wane na ko du Touba du Tivaouane du kaw la du feneen ak feneen waaye comme politicien la dañ koy waxloo ñu ne ko demal ne dafa am ay xale yu doon waaj a def ay attentat pour dal ci kaw ay kilifa diine mën naa giñ ci weeru koor gi ñu nekk nii ni procureur waxul dëgg moom ci boppam xamul ñëw am na ne waxul dëgg moo tax ñii dañoo dangereux ci réew mi ndax nee naa leen Macky Sall li li gën a sensible ci ay nit lay fooye mooy bugg a jaxase nit ñi ci wàllum diine wàllum waaso wàllum xeet wàllum région mooy li gën a danger te loolu dara waral ko lu dul bugg a toog ci nguur rek may feddali sénégalais ni procureur baaxul ak ni ma ko xamee moom xam na ni moo tax xale yi gis naa bi muy wax ñuy ñuy commenté naan ko yow bu yóbbu mun ngaa dem naan ndox ndax woro moom ci boppam digganteem ak boroom xam na ni waxul dëgg te kilifa yi muy essayer manipule kilifa diine yooyu xam nañ ni moom waxul dëgg Sénégal yi koy déglu yëpp xam nañ ni waxul dëgg àdduna bi yëpp xam na ni waxul dëgg waa lii lan moo ko jar ci àdduna moo tax ñu dellu di woo sénégalais yëpp nag suñu plan d'action bi ñu tëraloon waxoon nañ leen ni fi mu toll nii tembe autorisation ñàkk autorisation suñu nee dañuy marche dinañu marche déposé nañ ci territoire bi yëpp am na dégg naa fu ñu nangu am na fu ñu bañ rawatina ndakaaru gi may wax waa ndakaaru ni ka dinañu mar manifester bu soobee yàlla le 3 dinañ manifester le 29 muy suba dinañ manifester le 30 muy gannaaw ëllëg dinañ manifester le 3 incha allah. kenn mënuñoo boole kenn wax naa leen ko léegi la ñuy manifester xeex suñuy droit ak suñuy àq Macky Sall li ko tere nelaw fi mu ne nii mooy défilé kat avril bëgg na ñëpp ne cell ba moom mun a def défilé bu rëy rëy rëy te lim ci jublu mooy gën a nappaat sénégalais yi wan leen ni jënd naa ay ngannaay yu bëree bëri bëri ay char de combat ay mété ay lëli ay lëli défilé ba kenn ëppale wuñ si ndax fête de la nation ñun ci nation bi lañu bokk. waaye calendrier Macky Sall du yóbbu suñu calendrier man mii dañ maa convoqué gannaaw suba ci tribunal calendrier bi changé wuñu ko pourquoi ñun ñuy changé suñu calendrier ci leneen ak leneen moo tax ma ne nit ñi bu ñu sàggan ba Macky Sall am li mu bëgg na ñëpp génn massivement na affaire yi gën a tar dañu ne manifestation pacifique jàmm la ñu woote am nañu droit génn dox parce que constitution bi moo ko bind bu ko Macky Sall buggee tere nit ñi nag lépp lu am ci loo xam ne dina indi xëccoo dina indi pëccëxoo Macky Sall ak polisam ak gendarmerie ñoo koy andi lii muy def ni nag foog ni mën na fees bëtu nit ñi may dalal si xelu sénégalais yi Macky prison mi mënul arrêté sax deux mille sénégale yóbbu leen prison fi mu ne nii prison yi fees na lii mu jël jamono ji naan ay bracelet électronique di ko teste ci waa Pastef yi te li ciy jublu waayam tam mooy fexe ba wone isolé na Pastef may wax ni mënoo fexe ba isolé Pastef ndax Pastef dafa ànd ak sénégalais yi d'abord dafa ànd ak askanu Sénégal askanu Sénégal moo porté Pastef ci ci boppam waaye Pastef dafa ànd ak opposition bi ñu ànd di xeex li ñuy xeex def benn say moo tax mënoo Moussa Kiwane ba isolé Pastef bugg a gëmloo ni Pastef mooy parti bu violent mooy parti bu fippu déedéet dafa fekk Pastef nga singali moo tax Pastef taxaw jàkkaarloog yow waaye opposition bi yépp ñoo ànd tey fas yéene jeexal nguuru makisal kon lii lañu ñu a waxtaan ak yéen ci lu gàtt di wax tamit ni ndaw ñi bu affaire bi dem ba yóbbu leen ba ngeen fàtte dem bindu ji ci liste électorale yi na ñëpp dem bindu ci liste électorale yi na ñëpp dem bindu ci liste électorale yi parce que loolu moo leen di jox ngànnaay gi ngeen di xeexee ba su élection ba ñu mun fa jëlee Macky Sall wala candidat am bi toog ndax moom amul droit nekk candidat ñu duma ko dès le premier tour ñu abal ñu may réew mi jàmm ak aafiya ñu defar réew mi may daaneel nag ci dalal xelu ñëpp. damay gis léeg-léeg ñu bind ñu naan euh, euh, sonk dañ ko euh, ñi ko wër ñëpp dañ leen a isolé Sonko wéet na Pastef la ñu bëgg a sonk Pastef kenn mënul ko dara gannaaw yàlla Pastef kenn mënulu ko dara gannaaw ma ay at a ngi ni Macky a ngi jéem du tey jii nga xam ne fukki weer moo des ci mandaam la Macky bi mënal Pastef lu mu ko mënul woon démb fileeg Ousmane Sonko ngi dund yor bakkan bu soobee yàlla nañu xam ni Pastef kenn mënulu ko dara kon ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen wax ñu gën a yokk taxawaay bi gën a yokk ndëgërlaay bi parce que nag xeex bi dañ koy gañe de te gañe nañ ko ba nopp